ñëw ak yéen comme niñ ko baaxoo defee ci bi yi def ci koor bi te nag ñu ñëw yéen ci benn masala boo xam ne mu ngi jëm ci koo xam ne yàlla dafa dogal mu dof ci bëccëgu weeru koor wala suñu borom dogal mu xam ci waaw bu wooree bi ci digg mu xam mu dof a diggante wala sax mu def ko ci guddi gi boobaa naka lay demee ndax am na ci ñoo xam ne suñu borom nattal na leen xeeti tawat yu deme noonu ca léeg-léeg mën na leen a dikkal ci wéccu weeru koor képp koo xam ne nag yàlla dafa dogal ak ndox dikkal ko ci jamonoy fajar muy jamono ji nga xame ni ci la ñuy yéene ci lañuy ñuy jàpp wala sax jamono ji yàlla dogal mu xam nga xam ni euh, jëpp mën a yéene bis boobu. kon boobaa naan ko bu ximmili ko day continuer woor lu des ci bi waaye da koy fay lan moo tax moom eh, yéenewul waaw ndax jame jamono jam dof wala jamono ji nga xamee ni ma ngay xam daa eh, dajanteeg muy jamono yi nga xam ne ci lañ war a yéene ndax wax nañ ni yéene muy tàmbalee ci jamonoy timis eh, guddi di jot kon nit bu fekkee dafa xëm ci jamono jooy wala mu dof ci jamono jooy muy ci jamonoy fajar waxtu woo nga xam ne ci lañ naan jàpp jot na bu fekkee xam nga ci jamono jooy la ko dikkal ba mu dugg ci biir fajar gi wala euh, ndox ga ci jamono jooy la ko dikkal bu mu dugg ci biir fajar gi yàlla dogal mu xëm la ko ci bis bi walla ndox ga dem ci bis bi kon boobaa day continuer woor waaye bis boobu la koy fay boobaa nag dana euh, jaadu nga laaj daana waaw kon bu fekkee ne dafa xëm njëkk fajar jot nag euh, walla mu daal di dof njëkki fajar di jot kon boobaa ànd rek dañ naan ah bu fekkee ni euh, bi muy xam njëkk fajar la ci mu euh, ximmiliku njëkk jàpp di jot waaw wala mu ximmiliku ci jamono jooju kon moom ximmiliku njëkk ximmiliku ci jamono jooju kon boobaa moom ximmiliku na ci jamono ji nga xam ni boo ci yéenee dana jàll ndax nit ki saa yu yéenee rek njëkk ñu naan euh, nañ bàyyi lekk naan kon bu yéene ji day day baax waaw kon bu fekkee daal njëkk ci guddi gi la xam wala mu dox ci guddi gi ba jamonoy fajar mu door a xëmmidiku kon boobaa euh, ak koram dana baax ci lu jar doon wax mooy koo xam ne ci jamonoy fajar moom ci la door a tàmbalee xam waaw kon boobaa moom ak koram faaw da koy àggale waaye tamit faaw da koy fay bu fekkee yàlla dogal na mu xëy ko ci bis bi léegi nag mm, ba tey tamit mën ngaa laajaat daane waaw koo xam ne moom xamul ci guddi gi waaye xamul ci jamonoy fajar waaye ci bëccëgu weeru koor ci la ci bëccëgu koor ci la ci la dof euh, diggante bi tamit mu daat fi wéraat njëkk dot ci jot kon boobaa nan lay def boobaa dañ naan bu fekkee ne li ëpp ci bis bi da koo xam wala li ëpp ci bis bi da koo dof kon boobaa day fayaat koot waaye day àgg noppi daal di fay waaye nag bu fekkee ne eh, xaaju bis bi rek moom la xam walla xaaju bis bi rek la gën a la dof wala lu gën a néew loolu kon boobaa moom dara waru ko mën naa àgg kooram dana baax ca du fay waaw kon daal koo xam ne ci bëccëg ci la xam wala ci bëccëg la dof bu fekkee li ëpp ci bëccëg bi da koo xam walla li ci bëccëg bi da koo kon boobaa day àggale ba fekkee nag li ëpp ci bëccëg bi euh, maanaam li gën a néew ci bëccëg bi moom la moom la dof wala li gën a néew ci bëccëg bi moom la xam wala xaaju bëccëg bi la dof wala xaaju bëccëg bi la xam kon boobaa incha allah day àggale korom ci dara waru Euh, kon ñu yem fii ci bind bi bu ko defee képp koo xam ne am na ci lu ko leerul rek wala am na yeneen laaj yu ci koor waaw bu ko defee bu ñu ci junjee incha allah dañ ko ci indil ay leeral waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin